yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. aouzu billaahi min sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbokki jullit yi yi ñu ngi leen nuyu di leen ziara bu baax di jiital ci nuyu bi saaxibatul fadil Cheikh Mamadul Muntaxa di ko nuyu te di ko bu baax di sant sunu borom bi tam bu baax ci. barab bu tedd bii ñu dajewaat tey tey nag ñu amoon ay gan yoo xam ne daari mu Moukhaddamatoul Khidma da leen a dalaloon ci barab bu tedd bi ñu leen di tuddee ay communicateur traditionel te kenn ku nekk xam communication ni amee solo ci l'islam rawatina ci yoonu murid rawatina ci réew mi ñu dëkk muy Sénégal yàlla dogal ñuy ñoom it ñuy def ay liggéey yu am solo ci dëkk bi ñu nit ñu nekkal leen ci barab bu tedd bi bu weeru koor wi tàmbalee ci benn fanu Ramadan ba ni weer wi di feeñe bis bu set nii lañ koy ànd bokk yi jamono bu nekk nag ñuy dalal ay nit di leen di ànd ak ñoom liggéey bi tey nag ñu tànnoon communicateur traditionnel yi nga xam ne dalal leen ci dëkk bi xëy na mbooloo mu yaatu la waaye dañ cee jukki ñenn ngir ñu représenté ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk seen gannaaw yëpp mu mel ne nag ku ñuy wax sëñ Xaadim mooy jël seen kàddu ci turu mbooloo moomu kon ñu teewlu leen sëñ Xaadim bisimilah. bisimilahi barkeb Cheikhuna Ahmadul Khadim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu ca di leen jaar ci turu mbooleem association communicateur traditionnel yi nga xamante ni ñoo nekk biir Touba ci turu président Modou mbay Ndiaye association communicateur yi nag soo ko déggee mooy kuréel gi nga xam ne danoo booloo di yëkkatindoo di tegandoo ci bëggug dëkk bi ak li nga xamante ni mooy war may dëkk bi war may dëkk bi nag suñ dee sàmmonteeg moom ki nu dëkk la tax muy Cheikhuna Ahmadul Khadim kuréel boobee nag sun borom dimbali na leen ci kattanam ak man-manam ba nu ci seenu lëkkaloo ci leen bennoo ba am kayit woo xamante ni mooy firndeel seenug bennoo muy récépissé am nan ko ca jamonoy président ab laay Wade mu tolloog 2011 boobu ba léegi ñu ngeek moom loolu bu ngeen déggee ñu koy leeral mooy ay géwal danoo bari ci biir dëkk bi te ñoom ñëpp kenn ku nekk bokk ci deret ji waaye ku ngeen gis mu nekk ci biir mbooloo mi Modou Mbaye Ndiaye jiitu ko rek kayit woowee tënk na ko ku ngeen gis it tënkuwut ci biir mbooloo mi tënkuwut ci biir kayit woowee mën na ne ab géwél la boo xam daa nekk ci biir dëkk bi rek ñu bokk ak moom deret kon looloo tax ñuy leeral loolu ñoom ñooñu nag ñoo ànd tey jii président bi léegi ak alaaji Pape Mbaye du sunu mag ñun ñëpp ñu xam ko ak alaaji Gora Ndiaye nekk nii ci sama loxo càmmooñ ñëpp xam ko moom mu yor sunu wàllu organisate euh, organisate organisation bi ci sunu biir ak Baye Yaba Thiam mi ngeen xam yéen ñëpp kenn ku ne xam na ni moom mooy trésorier groupe bi euh, ca kenn ku ne xam ne waxtu juróom yëpp moom ci biir jumaa ji la koy jullee alaaji Pambay mi ma doon tudd bokk na ci sunuy secrétaire yi nga xamante ni lépp lu ñuy bind ak lépp lu def moo ko Maxtaar Mbuub ñoom ñoo ko seq euh, ñu ak mbooloo moo xam ne mu bari la nag moo ñu ngi ci sunu ginnaaw ànd ak ñun ci invitation bii nga xamante ni nag waa mu xaddamatul xidma dañu ko invité ngir at mu jot ñu dikk di ndogoo ndoog ñoom ci biir jumaa ji lu ko waral lépp nag mooy danoo bokk gën a bëgg muy Seexuna Ahmadul Xadim ci mënuñu ko seddoo ñu dëkk ci dëkk bi doon sunuy sëriñ ndax biir mu xaddamatu mu xaddamatul euh, xidma boo duggee ci biir daayira bi ay sëti sëriñ tubaa ngi ci sëti mag ña doon lëggeel sëriñ tubaa ñoom ñëpp ñu ngi ci ñooñu nag fépp fu nekk ab géwal boo xam ne dafa yaakaar sëriñ tubaa bokk ci ñi nga xam ne ñoom seeni seen i maam fekkoon fi sëñ tubaa ñenn ci suñu maam yaakaar sëñ tubaa jébbal nañ waaye laxasaay ga sëriñ tubaa takkal seeni maam laxasaay yi dafa wuute ndax am na ci laxasaay yoo xam ne laxasaay la goo xam ne dalay toftal mbooloo am na ci laxasaay yoo xam ne waxta laxasaay goo xam ne nit mooy gii ñu yor mooy su sunuy maam sëriñ tubaa da koo bàyyee ak kaddu ga mu yoroon fukkul ndënd yi waaye da koo foorewaat neneen ni mu ko foorewaat nag mooy wax lu baax teg ko ci siraatal mustaqim ca bañ koo génn benn yoon ñun ñii ci loolu la ñu tënku at mu jot nag ñu ñuy woo fii di ndogondoog ñun ngir di taataan suñuy kàddu ñoom it ñuy taataan liggéey bi nga xam ne ñoom lay moom la ñuy liggéey ci biir jumaa ji ca di ko rafetlu bu baax. kàddu yi may jël nag dama ko jël ci turu président Modou mbay Ndiaye ak kuréel bi waaye moom dama koy ubbil ndax moom mooy kilifa liggéey bi ca tubaarkalla li muy liggéey tubaarkalla macha allah kon nag na xam ni mbooleem ñi nga xam ne ñooy association communicateur traditionnel yu Touba doon géwali Cheikhul Khadim yi ñu leen koy dakkantale ñoom kat li nu bëgg mooy fii dan euh, lëggeel Serigne Touba. te yaakaar na ni bërëb bii bërëb la bu ñuy dakk Serigne Touba ndax ndogu yi ñu fi def yaakaar naa ku dib jullit bëgg lu baax soo gisee lii ñuy def war nga ca boo ca nekkut war nga ca tàbbal saw ñaq ñun nag gis nañ ni ñu ngi ci biir dëkk bi di dem ak a ñëw. ñoom ñu nekkal ñu fii moo tax at mu jot ñu jël lenn ci sunu ñaq barkeeloo ko ci biir liggéey bi ngir jàppale leen ko ndax loo xamante ne ki fi nekkal Cheikhul Khadim da cee dugal aw ñaqam taalibe bu bëgg lu baax lu nekk war nga caa dugal saw ñaq kon loolu moo waral ñun ñu dagg suñu ité yëpp at mu jot ñu tànn ci benn bis dikk ndogoonoog ñoom ca turu président Modou mbay Ndiaye kon ñun ñu ngi sant waa mu Muxaddamatul Xidma ci turu sëriñ Abdoulahat Boussa mi nga xamante ni eh, moo jiite liggéey bii waaye di siyaar suñu sëñ Abdou bu sa mii Marème mi nga xamante ni mooy sunu bunt ndax bu jaaree ci président Modou mbay Ndiaye ne ko président dama bëgg ngeen ndogu si président dugg ci biir groupe bi ni sëñ Abdou Lahat na waaye kat danoo bëggoon lenn ci mbooloo mi ñu tànn lu tolloo juróomi nit ñu teewal fa ñi ca des mbooloo mi ña ca des ñëpp d'accord ci ni nan tànn diw ak diw loolu mooy bennoo gi ñu sunu borom boole. kenn jéemut a xëccu ne maay dem mbooloo ma fa nekk ñëpp kenn ku nekk dañ ne ko président xoolal diw ak diw ak ñu dem diw diw yooyu mooy ñi teew fii kon sañu laat ñun ñu ngi sant Serigne Touba waaye ñu ngi sant seen jëm yi ndax fii képp ku di jullit yaakaar sëñ Touba rek war nga fee taxawal sëriñ bi ndax jumaa ji baax na lool waaye na fi sëriñ bi nekk nag bu fi sëriñ bi tëddut mook yëpp a yem waaye tëdd bi tëdd moo tax mu wuteeg jumaa yi yëpp kon loola tax war ma ji ngeen am ak yell euh, wàccuwaay wi ñu leen jox ñun taalibe yëpp ñu jox leen ko warmaan leen ndax yéen nekk ci barab bi gën fudul makk rek fiyee ko gën ci ñun taalibe Sëñ Tuubaa fudul Makka rek ñun fiyee nu gënal kon ñu ngi leen di roy ñu ngi leen di xemmem ñu ngi safoo liggéey bi nga xam ne yéen nga koy liggéey di ci liggéey Sëñ Tuubaa yàlla ngeen ci daje ak tawféexi Sëriñ Tuubaa dama doon ubbi rek lenn ci ay kaddu maa ngi jégalu. xam naa itam jox sëñ xaadi jo ni sëñ Modou Mbaye président ni ko sëñ Xaadim waxee sëñ Xaadim sa kaddu mi jotal na waaye nag euh, noonu lañ ko nosoon dañoo waajaloon ngir président man koo tëj moom itam ndax euh, li ñuy retenir nag ci jotaay bi mooy maanaam li ñuy tuddee communicateur dañ ci fii jamono toll ñi ngi gërëm baax Sëñ Abdou Lahad mi leen dalal ci barab bi ndax civilisation bi ñuy gis ci yéen ak nite gi ak dal gi ak taalibe gi ku ne xam na ne ni ngeen koy defee ak niñ gis ci at yu mujj yi ni ko ñenn ñi di defee woote na te ku ne xam na communicateur rôle bi muy rôle bi muy doxal ci société dafa am solo rawatina suñu société yi suñu société yi ñu nekk nag rawatina communauté yoonu murit loolu ñu bari dañ koy ràññee ak di ko seetlu yaakaar naa démb rek am na mbokk muy wax ne li ma gis géwél yu ndaw yi di ko def ak ni mag ñi daan def am na ak wuute waaye ko xool seen comportement xam ne yéen barab bu nekk amu leen fa sens interdit fu ne mën ngeen faa dugg sëñ Xaadim mi jël seen kàddu léegi rek wane na ko comme président ñu jox la nga tëj bi laaj bi ñu leen laajaal itam mooy yëpp yéen a ngi fiy teew sëñ Abdou Lahad di leen bu euh, sa lu ngeen lu ngeen gis bi lu ngeen ci yëg. waaw kay euh, jërëjëf sëriñ bi jërëjëf euh, jërëjëf sëriñ Abdou Lahad mi nga xam ni moo ñu dalal ta ñu àndoon ak moom doon def visite bi waaye jërëjëf it sëñ Abdou Lahad Bousso mi nga xam ne mooy président daa iratu daairatu muxaddamatul xidma ak mboolem ñi ci bokk ñëpp euh, sëñ Xaadim wax na léegi mi yore sunu kàddu waaye xëy na luñ ciy dolliwaat ci lu muy wax amut waaye xanaa comme ni nga ko waxee rek xanaa ay kàddu cant ak ngërëm ak question bi nga xam ni posé nga ma ko te mu doon loo xam ni bu fekkoon ni laajuñu ko it laajuñu ko it ci li ñu observé xam nañu ni li ni mbirum Sëriñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am ndax ku ne xam na ni ndog yi euh, ku fi daan ñëw surtout ñun ñi nga xam ne daan nañ fi ñëw di fi enregistré ay émission di yaatal liggéey bi xam nañu ni bu njëkk fii ci wetu ndeyjoor gi ci yokk bi fi la ndog yi yamoon euh, waaye léegi boo waree jumaa ji ci amélioration bi nga xam ne am na fi muy ci côté càmmooñu jumaa ji boori euh, féete Kër Sëñ foofu yëpp dañ koo lal nga xam ni boo xoolee itam ci ginnaaw ak war may barab bi ni ñu xàjjalee jigéen ñi ak góor ñi fi ñuy nekk ak jigéen ñi toppatoo jigéen ñi it ak boo xoolee comportement yi yor nga xam ne ay saalihaat lañu kon loolu bokk na ci observation yi nga xam ne def nañ ko fi kon ñu xam ne it euh, Serigne Touba it la mu ñaanoon ci dëkkam bi ci xam-xam ñaan ko fi ci yar ñaan ko fi ci teggin ñaan ko fi ci ma ci ma matlabul ni ku ñëw ci barab bii da nga ko gis wàcc alhu dëx ban maskana taallumi wa mawdi al fikrati wa tafahumi ñi fi ne dañ leen a jàngal ba ñu denc dañoo jàng ba denc ci réer ginnaaw bu ñu bokkee fi ñu war a bokk ba noppi wëlbatiku nag jëfe ko ndax xam-xam bi lu mu bari bari al ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahum noorun maa diraaya kon xam-xam bi mën naa bari waaye boo ko jëfewut it moo ku ko xamul ku xamul sax moo la tane kon ñi fi nekk mel na ne li ñu xamit jëfe gi ñu koy jëfe moo tax boo dikkee ci barab bi waxuma la jox nit ñi ñu lekk waaye jubbanti leen ak teg leen ci yoon ba ñu mën a méngoo ak barab bi loolu doy na sëkk ab liggéey loolu nag dafa laaj communication aussi communication boobu nag ñu bokk ci vole yi nga xam ni ñu ne dañu dañu siy yëngu di dem ci dëkk yi dëkk bi di dem ci réew mi di dem ci barab yu fasantikoo kon nag liggéey yu mel nii boo nee ci ab dëkk li may wax ni jàng mi Touba dana bari ko fi dana ja bari ko jàng Touba am ne fi waaye nag mu jàng Touba daf ciy baax ñun ñi nga xam ne nag rawatina ñoo yore communication ci fi yëngu. kon ñu nit xam réalité dëkk bi ak xam li fi ne loola dafa am solo moo tax visite bi permettre nañu ñu ni tamit suñuy communication ñu gën a mën a jotal liggéeyu Moukhaddamatoul Khidma ba ñu xam ne itam am na taxawaay bu ñu fi am te du lii benn bànqaas la ci li ngeen yor ndax bu ñu xoolee lu jëm ci setal barab bi yéen a ko yore lu jëm ci bàq ya toppatoo euh, ñi nga xam ne ñooy way dawle yéen a ko yore loolu kon ab liggéey la boo xam ni bu Serigne Touba dellu si woon du ngeen soppi na ngeen ciy doxee kon nag daal ci turu tu les communicateurs traditionnels ma toftal ko ci waxi sëñ xaadim boobu ji mu waxoon ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ndax cant gi mooy nu nit danoo ne ci dëkk bi nekk fekk suñuy nawle nekk fekk suñuy bokk kon nag nu nit bu nu amee dox bi bu nuy doxee ba ngeen indi ci jumaa ji te barab bii nee naa leen ñaar yi ñuy wute yàlla ak Serigne lépp ci barab bii la ne ndax bu ñuy wut yàlla ci jumaa ji lañ koy wutee wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahadan waaye bu ñu wut Sëriñ waa mi ngi nii barab baa ngi nii kon nag kuñ fi woo am na cër buñ la jox cër boobee ngeen nu jox nag ba woonu fi loola ab soññee la ci ñun waaye ñu ciy soññaale it ku ne ci dëkk bi te bokk ci bokk gi te am doxin way doxi nga soppi ko te xam ni bëgg dem ci yenn barab yi day am benn comportement boo yore kon loolu lañ ne woon ñu ngi koy lancé ñëpp di ñaan yal nañ ko teewee déwén li ko sëñ Xaadim waxe lii nu indi xeeb nañ ko lool